بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الأحبة في الله فإنه لشرف عظيم أن نلتقي معكم هذا اللقاء المبارك لكي نتحدث حول بعض الشباب كان لهم أثر ملموس في التاريخ mbokk yi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala ñu julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii presque bu ñu ko tuddee conférence bu ñu ko tuddee lenn lu dul waxtaan la fàttalante la ndaxte amaanaa li ñuy wax yéen ñu ko gën a xam mais bu ñu ko fàttalee mu nekkee ne leen euh, dañuy waxtaan ci ay ndaw ay jeunes yi nga xamante ne bii nii amoon nañu jeexital yu ñu def ci histoire bu ñu ko waxee mënoon nañoo duggee ci côté bu nekk ak anam yu bare mais incha allah li ñu xalaatee dinañu tànn ñenn wala yenn qissa yi ñëw ci alquran wala ci sunna ci ay ndaw yu jiitu xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu paree tamit ñu jël ñenn ay quelques exemples rek ci ndaw yi dundoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn ci ñoom ñu wax dara ci seen dund amaanaa mu nekk jàngat te kuñ ci wax ku nekk tamit xëy na am na côté benn aspect buñ ci xool ba tax ñu tànn diw moomu bàyyi keneen euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dañuy fàttali rek que ne xeet yi li koy doxal li koy taxawal li ko téye mooy jeunesse bi loolu li koy firndeel mooy bu ñu seetloo parce que sànq yéen a ngi waxtaan ci âge yu jeunesse jeune bi ban âge lay am supposons ñu ne diggante 15 ans ba 40 ans bu dee mooy âge bi da ngay gis ne ñi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam presque ñi ci ëpp ñi ëpp jeexital ci l'islam tey jii ñu leen di dégg ci âge boobu la ñu nekkoon donc jeune di islam diine jeunes yi la ñu xam ne xeet bu bugg a taxaw bugg avancé il faut nga taxawu sa jeunesse il faut nga waajal leen ba looloo tax toujours ñuy fàttali ndaxte dañoo toll ci jamono yoo xam ne nit ñi dañuy bëgg a gëmloo que ne nekkul lu du fokat jeune bu ñu ko waxee rek koo xamante ne bi amul yitte amul lenn lu ko soxal na lu dul foo ak caaxaan gi bu demee école jàngi amaatul benn rôle bu mu war a def ñuy waxtaan ci ñoo xamante ne bii nag ñoom ñëpp ay jeunes lañu woon ndaw lañu woon kiñ ci tàmbalee muy siiw ci histoire muy Seydina Ibrahima alayhi salaam ci moom lañuy ñuy commencé déjà yàlla subhanahu wa tànn na ko mu nekk yonent mu nekk baayu yonent yi mais ni ko alquran tuddee kaana umma Ibrahima ci boppam rek umma la woon looloo tax. ñu bëgg a waxtaan tuuti ci moom digganteem ak ñëm doon tuddal lu tax ñu ne Ibrahima jeune la woon parce que ci alxuraan boo demee da ngay fekk ñu ne qaalu sami'na fatan yuqaalu lahu Ibrahim la paa la du ñu utiliser terme boobu duñ Ibrahim kon moom shaab bu la woon parce que fitya ak shaab benn la shabaab moo tax bu ñëwee ci ashabul kahf tamit da ngay fekk lu yàlla subhanahu wa taala lu mu leen tuddee wala lan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda donc ils étaient jeunes ndaw la woon ay xale fitya kon Ibrahima aussi ndaw la woon ndaw la bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf ko joxoon xel jox ko xalaat ba pare jël ko jox ko pas-pas bu leer mu gis donc lu leer nañ gis yoon wi fan la mu war ñoo jàngal nag yow jeune ginnaaw bi nga demee ba yàlla baaxee la nga gis yoon wi nga war a jaar nan nga war a fexee ba loolu du yenn ci yow mais dafay tas jëm ci ñi nga xamante ne bi mooy sa jëm ci adduna bi nit ñëpp mën a jariñoo ci yow parce que Ibrahim yàlla woon na ko yàlla moo ko woon wa kadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi wa yakuna min al muminin donc yàlla woon na ko lu leer ba pare moom gis na bu fekkoon ne ku anaani la koo xamante ni bii boppam rek moo ko intéressé mu yem ci boppam daal di toog mais déedéet dafa commencé jàngale di wone xamle nan la war a defee mu njëkk ñoo jàngal que ne yiw ak mbaax bu nit am sa njaboot ngay tàmbale loolu la yàlla wax subhaanahu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla wax wa andir ashirataka al aqrabin ñi la gën a jege ci sa ñoñ te foofu jumte la ak gàtt day dal lu bëri ci biir ci li ngay sonn ci àll bi doo ko sonn ci sa kër léeg kenn ci ñun mën na am sax day jàngale feneen ay cours ak ay nangam xëy na këram am na ñu mënta tari faatiha bu leer pourtant foofu mooy suñu liggéey loolu dañu jàngal ñun ndaw Ibrahim ci ku mu commencé papaam xool yàlla subhanahu wa taala wadkur fi kitaabi Ibrahima innahu kaana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima taabudu ma la yasmau wala yubsiru wala yughni anka shay'a donc ci boppam la tàmbalee ba pare nag kuy woo sa ci njub ci yar ko war a jaare xoolal kalimaat yu muy utiliser xam nga yaa abati pour ñu jàng arab surtout ñu jëlu jëlu tasxiir la boo xamante ne bii li taqrib pour wane cofeel gi nga am ci ki ngay waxal la comme ni nit di waxee nit yaa bunayya xam nga bu ñu wax yaa ibni sama doom mais yaa bu ne yow sama ndoom bu dee ci arab loolu day wane que doom bi danaa jege yaa u xayya donc kooku day wane ni ki ngay waxal da nga am ci moom cofeel da nga ko fonk daf la jege moo tax ñu waxtaan ak papam loolu mu ne ko yaa abati yow sama pap yow sama baay commencé koo tegal nag lu tax nangam ak nangam commencé utiliser xelam donc yonent yàlla Ibrahim jàngal nañu fi ñu war a tàmbalee ku ñu war a woo ak naka lañ ko war a woowee mais généralement mag ki la jur boo indee lu mu xamutoon li mu lay jàkkaar loole rek mooy doole ak violence wala ne dañ ma bugg a yàq kañ nga fi juddu ba mën a ñëw tey di ma jéem a waar te bu ci juddu parce que nit dina la gën a bëri at mais fekk yaakaaroon ci alxuraan yaakaaroon ci sunna sa papa bi ngay waxal mu ne la kañ nga fi juddu bay ñëw di ma bëgg a waar pourtant su otom paanee dee dem si garage mécanicien bi fekk fa ay xale yu tuuti mu jox leen otoom ñu réparé pour mu doon wax ñii kañ leen fi judd bay mën a mais day leen di déglu jox leen otoom bàyyi bu feebaree day ci médecin koo xam ne mais du ko kañ nga fi judd bay mën a ubbi sama biir wala di ma jéem faj donc sa diggante ak sa borom aussi waroo jël rek prétexte ne kañ nga fi judd. kañ nga toll nii mais malheureusement loolu mooy discours généralement bii njëkk a ñëw yow xanaa lii lañ fi fekkoon yow kañ nga fi ñëw ba bëgg fee indi lu bees yaa loolu la koy qaala araadibun anta yaa ibrahim an ayaati yaa ibrahim ah da bàyyi suñu yàlla yi soo ko bàyyiwul nag di xam ne maa la jur waaw ah, dama lay génne kër gi dama lay dama lay commencer menacer automatiquement menace lañ ciy teg da nga koy seetlu yow ci sa bopp bu yàlla dogaloon seen wax na nekk ci leneen nga gis sunna dellu si commencé góorgóorlu tuuti rek am nga nooy waxee rek ñu commencé laa won la yow mboolem robinet xéewal yi doon jëm ci yow moom dañ koy coupé foofu la ñuy tàmbalee la in lam tantahi la arjum man naka wax jur ni maliya mais Ibrahim taxul mu wanee yan dib taxul mu fetteerlu mais daf ñuy jàngal ba léegi naka ngay jaaree mu ne lan salaamun aleyk sa la laka rabbi innahu kaana bi xafiya kon ginnaaw bu mu paree ak papam ci discours yooyu mu dem ci ñi nga xamante ne bii mooy xeet bi askan bi door a ñëw moom wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah ndeke kon nit ko tamit bu ñu àndee ci lu dul njub waru ñëw tax ñu yóbbaale la ci lu dul loolu nekkal ak ñoom dundal ak ñoom waaye nag toujours da def benn barrage buy nekk sa diggante ak ñoom nga am sa ligne de conduite xam nooy doxee doxee ba pare nag wéeru ci yàlla subhanahu wa nga gis ne Ibrahim kon dafa jël dooleem ak xelam ak xalaatam yépp utiliser ko ci li nga xamante ne bii mooy daawa mooy woote jëm ci borom bi subhaanahu wa taala moo tax yàlla buy nettali fu mu jaar wa laqad atayna min qablu wa kunna bihi aalimin id qaala li wa qawmihi ma hadihi altamaathilu allati antum laha aakifun qaalu wajadna abaana laha aabidin ba fu aayaat yi di ngeen ñu jéggal nag léeg-léeg ñu dagg aaya yi ak yu mel loolu ngir dañoo bëgg ñu yegg ci fi ñuy jëm balaa ñuy perdre de temps la ñu jéggalu si loolu ndaxte du ñàkk a fonk aaya yi wala dara parce que bari day bari léeg-léeg dina jël ci ñun temps bu bari te dinañ ko soxla xëy na ci yeneen gars yi ñuy bëgg a wax ak ñoom donc nga gis ne Ibrahim dafa utiliser xel utiliser wul doole ak ñoom mais gars yi souvent nit bu demee bàyyi argument jeex amatul lu mu wax layam jeex rek ci doole lay jëm ñaari nit suñuy wax di werante ci benn mbir ki njëkk a saaga njëkk a wax wax ju ñaaw xasaate rek kooku la ay layam jeex parce que wax ak nit ci xam ngeen di wax yàlla lii la wax yonent lii suñu suñu yoon lii la nga ne yow déedéet yoon bi lii la mais day mujj dem ba kenn jékki-jékki commencé xaste commencé saaga ah kon kooku ay layam moo jeex gars yi bi seen layam jeex xoolal Ibrahima fu mu jaar ak ñoom bi mu ñëwee euh, mu ne leen damaa feebar gaa yi dem bàyyi ko mu ñëw ci seen yàlla yi maalakum laa tantiquun wax ak ñoom wax ak ñoom tontuwuñ nee na mu daaneel leen ba mu des benn bi mu wéy ko sébbiñ bi fa jaalahum juzaadan illaa kabiiran lahum comme ni ko alquran nettali bi gaa yi ñëwee xool Ibrahima lu mu leen wax afa taabudu daf leen di ko wax laaj leen leen bu dee dañuy wax. summa nukisu ala la laqad alimta ma haula yantiqun ñoom seen bopp ah ñu sëgg xam ne ñoom kat daanu nañu mais ñu ne ko yow yaa gën a tey ne lii ñu doon bu xalee feneen afata'buduna ma tanhitun kon nag ndef comme lii yéen yéen a ko yett kenn yel ko seen bopp munul défendre boppam munul la sax nettali ki def dara kon nag ngay retourné di jël kooku muy doon sa yàlla gars xam nañ ne li mu leen wax yenn na maanaam amatuñu argument bu ñu ko mun a tontoo lan la ñuy seet ñu ne kon ñu def recours à la force ñu ne qaalu harriquhu wansuru alihatakum kon tànn leen waa ji lan ko ngir ngeen dimbale seen yàlla yi yàlla bu fekkente ne nii pour ñu dimbale ko moom il faut ñu lakk ki nga xamante ne bii nii moom mooy ñëw jàmbaarloog ñoom kon yàlla moom lottu na kon loolu leen Ibrahima woon loolu leen bëggoon jàngal te aussi bi ñu demee ba indi violence tout ça bi mu génnee créé wul moom tamit ay euh, groupe am fële di xeex ak toujours bu leen teg déedéet donc yow jullit bu la kaay tooñee teg la dara lu dul yoon bu mu tax toujours nga jàpp ne man tam dama see war a jóge di fayal noo ak yow saa yu nekk bi ko gars yi jéemee lakk ba yàlla dimbale ko qul naa yaa naaru kuuni la wax def na leen dama leen di bàyyi damay def inni muhajirun ila rabbi sayahdin daal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala rabbi am li minan saalihin nga gis ne kon yàlla subhaanahu wa taala noonu lay demee noonu lay sunanam yi demee noonu la ay jàngale yoo xamante ne bii ibrahima alayhi salaam moo ñu ko jàngal wan ñu ne mbir mi nii la war a demee te gaa yi ak loolu lépp ñu bàyyi ba léegi di dàgg sante di ko indil mu wan leen ne rek déedéet man dëgg rek ak li leer mooma ni xaa o xajjahu qawmu qaala atuxaajuuni fi llahi waqad hadaani ba pare ñu bëgg koo tiital mu ne leen déedéet man fàlle ma dara yow jullit xoolal tey kii man man wala yëpp <clears throat> su la nit doon bëgg a menacer ci ne voilà yow wet di nga li biir na nga wax wala wala naanu yow de di nga gis lii di nga gis lii di nga gis lee saa yoo demee ba sa jàpp ne gars ñuy wax mën naa am mu def mu wàññi ma dara rek yow xamal ne am nga lu des ci yow xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la ñu jàngal mu ne waalam anna al ummata law ijtama ala an yanfauka bi shay'in ma nafauhu illa ma nafauka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak ñëpp bu ñu daje woon ne di nga mel nangam wala di nga am nangam wala dañ nangam te yàlla bindu ko ci yow loolu du am mais ñëpp suñ ne woon nangam dina la dab tamit dina la dal nangam dina la teg seeni bu xaabaak seeni lépp dajaloo def lu ñu mën a def yëpp pour génne la parce que am na ay nit tey jii ci sunu réew masalan ni ñu sonalee yeneen gaa yi nekk ci caaxaan ñooñu bu fekkoonte ne nii seeni xam-xam ak seeni xarala ak seeni bagage yooyu rek moo waroon a jeexal ak kooku kon kooku du dund ba heure parce que am na ñoon bu ñu sañoon denc nañ leen ci suuf si bu yàgg mais yàlla moo bind sa am su jotee nga dem bu jotul doo dem kon looy ragal yonent yàlla Ibrahima loolu la ñu doon bëgg a prouvé mu ne wala axaafu ma ma ashrabtum wala wala taxa wa kayfa axaafu ma ashrabtum wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazil bihi aleykum sultaana teg ci nag mu ne fa ayul fariqayni ahaqu bil amni in kuntum taalamuun yow bi sallallahu alayhi wasallam jafandu si su tiit di am est-ce que ci yow la war a jóge déedéet ki nekk ci caaxaan boo war a tiit loolu la ñu yonentu yàlla Ibrahima jàngal woon ñu ñëpp nag xamal leen nag déedéet ki war a am xel mu dal ki war a nekk en paix ak sécurité mooy ki gëm yàlla alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun yàlla nañu yàlla defal am ni kon yonent yàlla ibrahima noonu la ko defee yàlla subhanahu wa taala tagg ko def ko muy koo xamante ni bii ku kawe mu jàngal te loolu lépp mu ngi nekkoon gune xam ni ko boroomam subhanahu wa bëgg ci moom mu degg santeeg moom teg ci nag yonent yàlla Ibrahima dafa mel ni daf ñoo jàngalaat ci beneen qissa ba léegi ci dundam que ne yow jeune yow xale bi nga xamante ne bii danga nga gëm lislaam di ko dund da ngaa war a fexe ngay ngànnaayoo xam-xam ngànnaayoo xikma ngànnaayoo xarañ ba ku ñëw di wax ak yow nga am argument yu leer yoo koy mën a tontoo ñun dañoo war a jàng ñun jullit dañoo war a jàng dañoo war a xam xoolal yonent yàlla Ibrahim bi nga xamante ne bii nii namruud la namruud comme noonu la ñu nettalee ña ko bu yenn mu fassirul waxee ba muy weranteeg moom ci boromam subhaanahu wa taala muy ci qissa bi yàlla di wax ci alquran alam tara ila alladi xaaja ibrahima fi rabbihi an aataahu llahu almulk id qaala ibrahimu rabbi alladi yuxyi wa yumit qaala ana uxyi wa umit qaala ibrahimu fa inna allaha yati bi shamsi min almashriq fati biha min almaghrib fa buhita alladi kafar gis nga nga gis ne kon waa dafa ñëw bëgg koo diingat ne ko voilà yow comme da ngay jéem jaamu sa yàlla bi ngay jaamu lan la mën lan la ñuy defal mu ne ko si ki may jaamu de mooy bind mooy dundal mooy rey waa ne ko man mën naa loolu mën naa dundal mën naa rey indi ñaari nit rey kenn bàyyi kenn ne ko dundal naa kii rey naa kii et pourtant en réalité moom dundalul kenn parce que dafa fekkoon kii di dund xam nga dafa fekk muy dund moom dundalu ko. mais souvent loolu day am bu dee da nga di jàng yu sax ci téere mutaqaddimu ne ci usul yu ne ak fuqaha yi léeg-léeg nga dégg muy werenteeg nit daal di ne sallam naa jadalan sallam naa jadalan mooy lan mooy li nga wax nangu naa ko ngir ma mën na indil ay yeneen argument donte convaincre ma d'accord ma ci parce que léeg-léeg nit ki da lay indil benn lay mu leer la layam bi sax wéru mais moom loolu la jafandu bu baax nga ne ko supposons sax que ne li nga wax na sallam na Ibrahima loolu la ko waaj ne ko d'accord même bu fekkente ne li ngay wax lu dëgg parce que dundaloo kii mais yaa ngi jàpp ne yaa ko fi bàyyi ko ne yaa ko dundal mu ne ko fa inna allaha bi moo bind jant bi muy déparé penku di teeri sow léegi yow defal contraire bi comme yow da ngaa mun rek li yàlla mun kon tey wan ñu li nga mun na déparé sow jëm penku yàlla ne fa buhita allazi kafar kon nga gis ne yow jullit surtout yow xale ndaxte lu bëri li ngay wax nit ñi dañ lay bëgg a ne bi nga juddoo ak léegi waroo fee mën a indi ñun lu ñu xamut kon da war a fexe loolu mu nga teg ko ci cadre xam-xam teg ko ci cadre yar ba mu leer moo tax dafay baax toujours suñu amee occasion di delluwaat ci xissatu sayidina ibrahima alayhi salaam ñu ci delluwaat dafa bëri ay leçon yoo xamante ñun jeune dañ ko war a jàngee xoolal lii lépp presque ci marxalatu jeunesse am la kon ñun loolu te gis nga même bi mu demee ba nekk mag encore dafa jàngalewaat ay leçon yu yéeme xool yàlla bi mu koy digal mu rey doom boobu dafa nekk mag demoon ba naaw yaakaar ne dootul am doom yàlla may ko doom imaginer tey nga fekkoon benn paa bi nga xamante ne am na quatre-vingts wala quatre-vingt-dix ans musul am doom yàlla wërsëgal ko benn xale xale boobu ñëpp ba xam ne mu mel du mës a du yaw te ku ko laal jot paa boobu léegi nag imaginer yàlla seet Ibrahim mu nekk mag am benn doom mu ne ko rendil boobu te ci gént la ko gisee xam nga xam nga lu mu doon demee sax mu xaw a commencé la am laa bi nag ah li ay nelaw la xaalu adrasu axlaam munoon naa wax loolu ne dañoo war a dig ndigalu waajur bu fekkente ne ni dañoo war a dégg ndigalu waajur kañ su dëppoo ak ndigalu borom bi subhanahu wa bu fekkee li ñuy digal waroowul benn yoon ak li yàlla subhanahu wa taala bëgg yonentam bëgg a def moo tax waxu ko defal li la neex daf ne ko yaa abati faal maa tu'mar liñ la sant li la sa borom sant la kon def ko bu fekkoon dalaa neex rek nga bëgg maa sacrifier loolu damay bay déedéet du ma nangu wa in jahadaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun falaa tuti'huma kon incha allah ñu tënk loolu muy lu ndaw ci qissatu Seydina Ibrahima mu nekkoon benn jeune bi nga xamante ne bii nii dafa taxaw jàmmaarloo ak adduna jàmmaarloo ak société bi yépp ba yàlla tuddee ko ne moom ci boppam rek xeet la woon askan la woon réew la woon inna Ibrahima kaana ummatan moo tax euh, Abdullah dafay wax parce que moom rek moo représenté woon tawxid yeneen gars yi jeunesse yépp représenté shirk kon ñooñu li seen nombre bëri bëri bëri benn umma la ñu woon moo doon ummatu shirk Ibrahim li nombaram tuuti woon tuuti woon lool mais benn umma la woon muy ummatu tawhid mu jàmbaar loo ak li nga xamante ne nii mooy ummatu shirk ñu am beneen qissa kon Ibrahim jàngal nañu woote jàngal ñu état bi ko war a jaar jàngal yu sax ci sa diine ginnaaw bi nga xamante ay mbugal ak nangam ak nangam fekk na la ci ndaxte dañoo taal pour lakk ko mu am beneen qissa ci alxuraan boo xamante ne bii tamit ay ndaw la muy qissatu asxaabil kahf comme ni ngeen ko xamee. boobu li ñuy jàngal nit nu mu war a sauver diineem sa diine sa pas-pas dalaa war a jaral adduna ak ci biiram souvent ñu étant jeune nga nekk ci buntu adduna da ngay dem di wut liggéey fenn wala nangam ñu xool ah gars bi ibaadu la de ñoom boo leen indee bi saa ñii dañuy dàq client dañuy nangam ak nangam nangam nga ne kon non kon naa dem wàcc si fekk si gars yi li ñu bëgg ba bàyyi sa diine nga gis koo xamante ne bii dafay liggéey sax ci dañ la may interpellé dañ lay interpellé yow léegi nga gis nit mu ne la par exemple ndax liggéey ci usine nangam te dañuy liggéey sàngara mais am na yeneen yu ñuy liggéey parce que bu la waxee sàngara rek automatiquement day xalaat nga ne ko xaraam na te moom étant jeune bëgg na bâtir avenir am foofu salaire bu baax fa am ak nangam ak nangam ak nangam mu commencé di la indil ay yeneen kii pour nga mën ne ko ah kon bu loolu la xëy na dina dagal nga gis ne nit sa diine amul jët adduna bi ci boppam adduna ak li ci biiram munta jënd sa diine bu la buñ la tànnloo lenn teg ko ci côté teg sa diine ci beneen côté jëlal sa diine te sa xel dal na nga xam ne doo torox doo sonn bu fekkee sa yéene wér mu dëgg doo torox doo sonn yonent bi sallallahu moo ñu ko wax moo ne lépp loo bàyyi te yàlla tax yàlla wuutal la lu ko gën kon d'abord il faut mu dëggu kële yàlla rek a tax nga bàyyi muy ixlaas ixlaasu niyya te foofu nag la fi jafee jafe-jafe bi nekk ndaxte bëri na nit sax lu muy def moom ci boppam léegi-léeg dina am yu ciy dugg sax bu ko gaaw a sentir donc moo tax yéene bu sell bu sellal yéene lool bu amee rek doo am benn problème moo tax ñi nga xam ne mooy asxaabul kahf nekkoon ay jeunes yu ñu won ne nekkee nit da ngaa war a sauver sa diine rawale ko ak lépp lu mën a xew ku mën a ñëw ci sa kanam loo mën a gis ñii adduna bi yëpp la ñu bàyyi woon pour sauver seen diine moo tax lu bëree bari mu ngi ci mais man leçon bu gën a mag bi nga xamante moom laa si jàpp tey pour ñun étant mooy sauver suñu diine xoolal bu ñu dawee bàyyi dëkk ba fu ñu dem dugg ci benn xun ñëpp xam nañ xunt kaaf ak xat-xatal naqari waayam mais foofu la ñu dund nekk fa pour lan mu jaral leen nañu bàyyi société bi parce que boo delloo xoola ba beneen gaa yi retrouvé tamit bi ñu yeewoo li ñuy tiitaan ba léegi mooy lan mooy seen diine rek innahum in yazharu aleykum lan la ñu wax yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim te bu boobaa nag su ngeen fexee ba gaa yi leen ba ngeen dellu mooy lan mu ne lan walan tuflihu idan abada du ngeen mus kon ndefee al ibra bil xawaatim li am importance mooy lan nga jeexalee xam nga sori woon nañ seen bopp daw dem ci xunduma nekk fa bu ñu fexee ba gars tegaat ci ñoom loxo ba delloo waat leen ci li nga xamante ne bii nii moom mooy kéefër xam nga kon ñoom def nañ étape bu mag a mag ci woon sauver seen diine ak si ngir li neex yàlla subhanahu wa taala mais suñu delloo ci kéefër rek la ñu liggéey yooyu yëpp yàqu ñu perte ko mu ne leen walan tuflihu idan abada moom la yàlla subhanahu wa wax sax yonente sallallahu la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxasirin donc ndigi loo def étant te léeg-léeg bëri na lu muy dal ci ñun mu commencé mu metti dëgër kañ waaw waa ji macha allah macha allah moo ko diw moo ko diw mais nga jékki-jékki gis ko muy wàcc di wàññeeku di wàññeeku dem ba nga xamante ne woon ginnaaw li nga xamante ne bii mooy la mu jàppoon ci ay pas-pas yëpp wala yaasu billah muy xaatimatu suuf dama siy wax benn exemple toujours dinaa koy nettali anecdote la subhanallah loo xam ne ko dund ak ay nit ñoom ñun ñoo tolloo âge waa ji tubaab la doon jàng la nekkoon pour ñi nga xamante ne ñu ngi jàng France xam nañu vent la nekkoon jamono yooyu yàgg na gën a nekk xale yu ndaw mais mu dëgër dëgër boo xamante ne bii nii dugg ci sunna rek jël affaire bi ak doole bu mel subhanallah waa demoon na ba finalement moom dafa jàppoon que ne sax même façon yére yi ñuy sol nii sax bokkut ci diine buy jàngi day sol sama door def kaala comme yu pakistanais yu yor kaala pour sax ak attirer attention professeur yi ba ko koy wax dara mais dem dem dem dem dem amal daaw taxaw si taxaw si mais subhanallah pour wax ne nañu ñaan yàlla subhanahu wa taala toujours ñu mujjal ñu mujj gu rafet ñoom sabaat incha allah ma dara dara si bi topp ci biir sabaat lay wax mooy sax ci lu baax. yàlla dogal ma def lu mot fukki at wala fukki at ak juróom gisewuñu ma ak moom bi ñu gisee waatee mu changé parce que mënatuma ko xàmmee mais bi ma ko laajee ci léegi looy yëngu mu ne ma dafa am benn hôtel moom moo géré boîte bi ay organisation ay élection miss ay affaire yu mel noonu ak ay soirée moom moo géré loolu quoi ma ne subhanallah ndekete nit fekk yeggoo rëccoo ma ne Cheikh Albani rahimahullah day wax wax bu am importance nee na yoon yu jëm ci yàlla yoon wu gudd la a tariq ila nee na yoon bi ngay topp pour jëm ci yàlla ak ngërmandeem yoon bu gudd gudd gudd la nee na objectif bi nekkul nga yegg fi mu jeexee mais objectif mooy fexeel ba booy dee fekk yaa ngi ci kaw yoon bi parce que mënoo fexe ba yegg moom ba jeex tàkk déedéet mais fexeel ba nga dee yaa ngi ci kaw yoon mooy sunna bi nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla sax kon ñu wax ne qissatu ashaabil kahfi li tax ñu indi ko ñu ne ñooñu ay jeunes lañu woon bi ñu demee ba bokkaale ak kéefal tas ci seen société ñu xoolaat seen bopp ñoom dajaloo daal di gis ne fii kat mënuñu fee sàmm suñu diine ñu fi desee yéefar la ñuy doon comme ñoom kon bu boobaa lan moo ñu war ñu dem rawale suñu diine te képp ku nekk ci ñun tey waxuma nag lii may wax pour ku nekk bu subaa nga xëy rek génn seen ne seen waxtaan damay génn non non sa yu ñu la xatalee ci sa diine ba mënoo koo pratiquer dara ci fi nga lekk da nga koy bàyyi da koy jug parce que buñ la mayee ba yow sax sa diine dara doo ci def booba amatoo droit des foofu war ko ndaxte bu dul loolu yowmal qiyaama boo ñëwee ci ñu tooñ ngay bokk inna alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim loolu la yàlla waxal ah. qaalu fi ma kuntum qaalu kunna mustadafina fi l ard yàlla nee na ñi nga xamante ne bii ni malaaka yi buñ leen di faat di jël seen bakkan dañuy fekk dañoo tooñ seen bopp tooñuñu yàlla de ku def lu la neex sa bopp nga tooñ mu ne dañuy fekk ñooñu dañoo tooñoon seen bopp malaaka yi dañuy am benn waxtaan ak ñoom ne waa yéen lan ngeen def ba lii dal leen gars yi ne waa parce que ñun dañ ñu néewaloon doole fi ñu dëkkoon waaw moomuñu kër gi comme dañ ñoo hébergé woon waa ji bëggul ko julli kër bëggul ko fa woor bëggul ko fa jaamu yàlla te ñun amuñu woon feneen fuñ dem on était obligé ñu rester des di def li mu bëgg malaaka yi luñ leen di wax qaalu alam takun ardullahi waasiatan fa tuhajiru fiha ah xanaa yàlla moom adduna bi dafa xatoon dafa jeexoon takk desatul woon lu dul kër seen jaatige boobu ñu ne ko déedéet mu ne kon da ngeen a waroon a gàddaay dem foofu kon asxaabul kahf dafa mel loolu la ñuy jàngal moo tax yàlla ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata haa'ulaa'i qawmuna ittakhadhu min dunihi aaliha lawlaa ya'tuuna alayhim bi sultaanin bayyin fa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiba kon gis nañ ne ñoom fii société bi baaxatul pour ñun ñu nekk fa il faut ñu raw nee na ñu daal di daw dem làqatu ji ñu ne nag wa id i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allaha fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kon nga gis ne yow xamoon nañ ne fi ñu jëm xat na metti na mais yërmande yàlla moo gën a yaatu lépp kahf bi dafa xat de dafa ndaw mais yërmande yàlla boo nekkee place lu mu xat-xat lu mu metti metti souvent yërmande yàlla subhanahu wa taala moo moo koy yaatal euh, dama si mos a gis benn mag ñuy waxtaan benn paa bu bëri xam-xam ndeysaan boobu maa ngi jàng ci dëkku naar yi mais première fois bu ma gisee doomam taaw bi ma gis mu ne xale bu tuuti ma laaj mu ne ma kii mooy suma xam nga comme ñun africain yi yi a jàppee comme euh, saxaaba yi li ñu doon xam nga saxaaba yi dañuy wax ñu ne di ñëw ci yoon bi parce que yow li ngay rusa laaj ak li ngay moytu ñoom dañ koy laaj directement quoi ñoom dañu doon ñëw ci yoon bi rek yow yonent nangam doon am masala bu koo wax mais dañuy am kersa du ñu xam naka dañ koy aborder mais déedéet léeg-léeg su benn arabe yi ñëwee digg bi lay jaar bu moytu dara moo tax ñoom dañ doon yàkkam ci arabe yu ñëw pour laajte li nga doon ragal a laaj wala li nga doon xaw a am kersa ñun aussi léeg-léeg dañ koy defal ñaare parce que bi ma koy laaj ñi nga foofu mais kenn ñemewu koo laaj parce que ci ñoom loolu ma ne ko mais góor gi yow da ngaa xalaat da a am jabar parce que kii xale bu tuuti la au moins ma ngee juróom fukki at sa taaw au mu ne parce que bi mu amee vingt cinq ans lañ ko jàpp tëj ko mu def ci kaso vingt cinq ans encore donc bi muy génn juróom fukki at mu magee doomam euh, li nga xamante ne bii mooy cinquante ans yooyu ci amoon boobu nekk moom du xat-xat ci moom parce que nee moom li mu doon jàng mooy affaire nekk ingénieur loolu la jàngoon ba am licence am ba commencé liggéey ñu jàpp ci ay événement jarul ñuy dugg ci détail yooyu mais nee na bi ñu ko tëjee yàlla daf ko baax ñu tëjandoo ko ak ay borom xam-xam yu mag ñu ñu doon tëjandoo di ay borom xam-xam lañ nee ci biir kaso bi ci la mokkale alxuraan ci la mokkale kutubu sitte yi ci la jàngee li mu a jàng ci diineem yëpp yëpp ba mujj génn nekk daaya bu mag ci biir réew kon kooku kaso dafa xat dafa metti mais est kasoom moom nekkul yërmande est-ce kasoom gënul moom mu nekkoon ci biti vingt cinq ans yooyu mën na am benn waaye la doon nekk rek boo xamante a du am benn njëriñ ci biir dund bi kon nga gis ne ñoom tamit asxaabul kaaf bi ñuy dugg ci xuntu bi xamoon nañ ne fu xat lañ jëm fu metti mais yàlla subhaanahu wa taala mën na leen faa defal jàppandal boo xam ne du ñu yëg benn coono moo tax ñu ne fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa euh, kon noonu la demee ba yàlla subhaanahu wa taala dogal gaa yi gisaat leen bi leen gaa yi gisaatee li ëpp importance lépp mooy leçon bu gën a mag beneen buñ ci jàngee ndax ñoom loolu la ñu loolu la yàlla subhanahu wa taala tënkee xissa bi mu ne wa kadalika a'tharna alayhim li ya'lamu anna wa'da allahi haqqun wa anna saa'ata la rayba fiha leçon bu gën a mag boo xamante ne asxaabul kahfi jàngal nañ mooy yàlla subhanahu wa taala lu mu diggee day am te bis benn dina amaat parce que gars yi deewoon nañ doo dekkiwaat nañ mu nekk ay leçon yoo xamante ne bii dañ koy jàng ci xissatu asxaabul kahf kon leçon bi gën a mag bi ñu waa asxaabul kahf di jàngal étant jeune ñun ndaw ñi mooy lan mooy nit ni nga war a rawalee sa diine sa diine sa pas-pas daf laa war a jaral bàyyi lépp àdduna li ci biiram pour rawale li nga xamante ne bii mooy sa diine ak sa pas-pas ñu jël beneen qissa boo xamante ne bii rot na ci sunna euh, mooy qissatu al-gulaam wa saaxir xadis bi nga xam ne Suhayb radiyallahu anhu moo koy nettali mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa amoon benn buur bu jiitu woon ci ñi jiitu buur bi amoon benn njabarkat bu ko daan jabaral que buur yi dañoo gëm jabar te loolu mooy dox ba léegi waa ji bi mu màggetee mu ne buur bi comme man damaa màgget yónnee ma benn xale boo xamante ne dama koy jàngal sama xam-xam bi su ma fi jógee mu continuer nekk ak yow nekk sa njabarkat yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy buur bi yónnee mais xale bi bu daan dem dafay romb benn jaamukatu yàlla bi mu ko rombee ñëw ci moom déglu ko wax ji yéem ko nag saa yu ñu koy yabalee pour mu war a dem jàngi njabar ci jabarkat bi day njëkk a jaar ci jaamukatu yàlla bi ci raahib bi waa ji jàngal ko bu demee bu day tardé bu ñëwee njabarkat bi da koy dóor benn bis mu mu wax mu nettali ko ki koy jàngal diine mooy raahib bi ne ko man suma ma géexee jub bu ma ñëwee déglu la ba pare su ma demee waa ji su ma ko fii laa jaar bu ma tardé daf may dóor mu ne ko boo demee danga naan leen sunu kër laa tardé loolu ngay wax waa ji sunu kër laa tardé xabasani ahli boo demee seen kër buñ ne la lu tax nga ne ci waa ji laa tardé kon na ngay naxanteeg ñoom daal ba génn ci diggante bi nee na ci noonu rek benn bis am benn daaba boo xamante ne bii nii dafa dogaale nit ñi kenn mënta dem kenn mënta ñëw léegi nag booy bi xalaat ne tey moom dinaa xam ndax njabarkat bi moo nekk ci dëgg wala raahib bi moo nekk ci dëgg nee na mu jël benn xeer mu ne yow yàlla bu fekkente ne li ma raahib bi jaamukat yàlla bi li may wax moom nga gën a bëgg kon bu xeer bi dalee daaba bi na dee ndax nit ñi mën a jàll daal di koy sànni bi mu sànnee xeer bi mu lar daaba bi daaba bi daanu dee nit ñi commencé dem di nettali loolu raahib bi nee na nag bi mu ko waxee raahib bi na ko ah kon sama doom tay léegi moom yow yaa ma gën parce que am nga karaama bu mel nii kon léegi raw nga ma waa ji jàngal ko ne nekk nit di nga jàngal nit mu raw te amul benn gàcce bu ci am par contre loolu yow sa ndam la sa taalibe su la rawee parce que sa taalibe toujours sa taalibe la yow lañ ko adressé kooku sa ndam la te reconnaître ne mën nañ laa raw du dara nee na mu daal di ne kon nag yaa ma raw tey sa mbir toll na fii te na xam ne dinañ la natt di nga taseeg coono bu bare yàlla subhanahu wa taala mujj dimbale xale bi may ko ay karamaat bu nit feebaree bu xale bi ñaanee nga wér lu dal nit xale bi boo dalay faj feebar yépp léegi nag euh, am kenn ku daan toog ak buur bi koo xamante ne bii gumba moo ko dal gisatul bi mu déggee ne xale bi moom lu la dal rek boo demee ci moom mu faj la mu daal di dem ci xale bi yóbbul ko ay kado yu bëri yóbbul ko alal ju bëri ne ko lii lépp yaa ko moom soo ma fajee xale bi ne ko man mënumaa faj kenn yàlla mooy fajaati foofu la problème bi tàmbale parce que waaye dama déggoon ne xale mooy faj ñoom yàlla bi ñu gëm mooy seen buur bi ak seen caaxaan yooyu bi mu ñëwee ne ko damaa bëgg nga faj ma damaa gumba alal ji indi yëpp nag laa lay fayee su fekkente ne wéral nga ma xale bi nag man mënumaa wéral ne nangu ngaa gëm yàlla ma ñaan yàlla mu wéral la ah waa moom gumba la te bés gis la bëgg mu ne ko d'accord daal di gëm ànd ak xale bi xale bi ñaanal ko yàlla yàlla daal di koy delloo ay mbiram bi mu delluwaatee si si buur bi comme moom gumba la ko buur bi mu jee gis mu dellu si waat ci buur bi toog buur bi gis ko mu yor ay bëtam di xool mu ne ko waa sama borom buur bi ne ko ah da am keneen ku la moom ku dul man da ngaa am beneen borom ku dul man waa ji ko waaw ki ma moom moom la mooy yàlla buur bi c'était pour la première fois muy moom dafa yaakaar ne moom rek moo fi nekk waa ji ne ko man ki ma moom moo ma delloo samay bët buur bi ne ko da nga am keneen mu ne ko maa ngi yow ñoo bokk sax kii ñu moom mooy yàlla subhanahu wa taala léegi nag waa ji ne ah buur bi ne kii daf may fontoo jox ko gars yi gars yi am fu ñu jaar ak moom am fu ñu jaar ak moom ba mu tegtal leen xale bi xamal leen ne xale bi moom mooy ki nga xamante ne bii moo ko jàngal lii moo ko ñaanal yoon wi lu mel noonu buur bi ne kon woowal leen ma xale bi bi mu ñëwee mu ne ko waaw moom gisul ne xale bi yàlla lay ñaan daf ne ko léegi kon yow jabarkat bi jàngal na la sëriñ bi jàngal na la ba nga xam ne léegi yow mën ngaa faj ku gumba mën ngaa faj ku muuma mu ku lu dal nit yëpp mën nga koo faj wéral ko xale bi ne ko déedéet man wéraluma kenn mais yàlla moom mooy wéralaate buur bi ne kii daf may sant moom tamit comme sama waajal nee na jël ko mbugal ko ba mu tegtal ko pour euh, parce que dañuy bëgg a xam fan nga jëlee ji wax comme amul woon ci dëkk bi fakkat moo ko jàngal ba mu tegtal leen ki nga xamante ne bi mooy raahib bi bi ñu indee raahib bi ñu ne ko nag léegi da ngay delluwaat ci sunu diine yi weddi yàlla jooju nga fi doon woote ba woo ci sunu gaay yi dof loo dellu ci suñu yàlla yi ñu doon gëm mu ne déedéet loolu moom xalaatuma ba moom yàlla laa gëm ci dund laay des nee na buur bi daal dina kon indil jël leen si xam ngeen si waaw waxuma ñu sant si de mais si mooy li menuisier di li ñuy daggee bant nee na ñu jël ah mooy minchar ci arab dañuy daggee bant ñu jël ko nee ñu teg ko ci digg bopp bi commencé koo siyee ba mu xaaj ko ñaari xaaj bu dee xoolal kooku diineem la sauvé mu daj ci lépp li nga xamante ne bii wax nañu bi mu bi ñu defee noonu waa ji ki nga xam ne moo leen njëkk jàngal ñu indi ki daan toogandoog buur bi waa ji gumba woon ba xale bi ñaanal ko naa li ne ko yow tamit gis nga kee niñ ko def mu ne gis naa ko ñu ne ko liñ ko wax lañ lay wax da ngay bàyyi seen affaire yàlla dellu si ci sunu diine ji mbaa li ko dal moo lay dal waa ji ne ko man tamit xalaatuma ko li mu waxoon li mu leen tontu woon laa leen di tontu ñu ne nga xanaa gisoo ni ñu ko def mu ne man daal li mu wax laa wax yàlla laa gëm ci loolu laa des nee na gaa yi jël ko moom tamit jël si jaar ko fi nga xamante ne bii nii foofu la jaaree ki jiitu ne indi leen xale bi ñu indi xale bi biñ ko indee da nga yow gis nga ñaar ñee liñ leen def liñ leen wax lañ lay wax rek mu ne man tam li tontu lay tontu yàlla laa gëm ci loolu lay des nee na buur bi jox ko benn mbooloo daal di leen yóbbu leen ko ci montagne ndàngam bi gën a kawe. bu ngeen demee ba fi mu gën a kawee ci ju na ngeen ne kon na wax ne bàyyi na diineem jooju mu nekkoon ak yàllaam yooyu dellu ci suñu yàlla yi wala ngeen sànnee ko foofu mu dee nee na mu ñu gars yi yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko ba ci doj bi gën a kawe ci dëkk bi yóbbu ko ci collo nga fu gën a kawee xale bi daal di ne allahumma ikfinihim bi ma mu ñaan yàlla subhanahu wa ne yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal ma gaa yi bëgg maa lool nee bi mu waxee loolu rek yàlla subhanahu wa yëngal jabal bi doj montagne bi yëngatu yëngatu yu métti gaa yi ko téye woon raf ñoom ñëpp ànd daanu ba mu des xale bi ñoom ñu daanu dee xale bi wàcc ndànk dox ñëwaat ba ci buur bi bi mu ñëwee buur bi nag ana ñi ma boole loon mu ne ko yàlla de moo nekk sama diggante ak ñoom moo ma aar moo ma fekk mu jox ko ñeneen ne leen yóbbu leen ko dugal leen ko ci gaal ba digg géej ngeen diigal ko bu nanguwul a dellu bàyyi diineem ji na ngeen ko diigal gars yi bu ñu ko yóbboo digg géej mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal ma gars yi nee na yàlla subhaanahu wa taala yebal benn malaaka malaaka mi dëpp gaal gi gars yi di nekkoon yëpp lapp moom xale bi rek mucc mu génn dellu siwaat bi mu delloo di dox ñëw ba ci buur buur bi ne ko ana ñi ma la mu ne ko yàlla moo ma aar ci ñoom buur bi jaaxle na parce que kii kenn mënatu koo rey te xam na ne buur bi rey ko rek la bëgg te xale bi léegi bëgg na daawaam avancé fii ñu bàyyi ci xel ci li muy bëgg a wax buur bi ak lii xew ndaxte moom dafa bëgg a sacrifié wu joxe boppam ngir diine ji avancé mu ne buur bi mënoo maa rey lu dul nga def li ma la sant soo ma bëggee rey man maa lay wax ni nga may reyee buur bi ne ko lan la mu ne ko réew mi yëpp nit ñëpp ngay indi ci benn bërëb ñoom ñëpp ñu taxawandoo benn place mu ne ko waaw mu ne boo leen indee mu ne nga takk ma comme ci benn garab nga yeew ma ci garab mu ne waaw mu ne nga jël ci sama mbar fi ma def samay flèche fet nga jël ci benn boo ko jëlee nga ne ci nga def ko ci sa flèche nga ne bismillahi rabbil ghulam maanaam ci turu yàlla mi nga xamante ne bii mooy boroom xale bii boo ko sànnee dig ma jam boo ma jamee damay dee loolu rek moom mën a rey kon ci yàlla rek ngay mën a référé wu pour rey ma xale bi li mu bëgg mooy won nit ñi que ne ndeke buur beeg liñ leen doon xamal yëpp mënul dara parce que ñëpp xam nañ ne fexeel ngeen ma lu nekk deewuma mu ne kon moom jaral na ko mu joxe bakkanam ngir nit ñi xam yàlla subhanahu wa taala buur bi boobu moom xalaatul piège bi ko xale bi di tegal moom li mu jàpp rek mooy ne voilà li occasion la pour ma débarrassé wu ci ngóor si mu daal di ñëw dajale dëkk bi yëpp ci benn bërëb yeew xale bi ñëw dindi flèche bi daal ne bismillahi rabbil ghulam dóor ko ko fi mu ko wax ci kerno mu daal di ko fay tiire xale bi dee bi xale bi deewee nee na nit ñëpp jugandoo tuddandoo yàlla ñoom ñëpp ñu ne aman naa bi rabbil ghulam ñun ñëpp gëm nañu yàlla mi nga xamante ne bii mooy borom xale bii donc moom atteindre l'objectif am parce que bëggoon na message bi yegg ci li ñëpp ñu gëm yàlla xam ne yàlla rek moo mun ñi des ñëpp caaxaan lañ amuloon lu mu koy prouver lu dul nii buur bi ci boppam moom moo leen ko won bi mu defee ay pexem yëpp reyul xale bi waaye bi nga xamante ne bii nii def na li ko xale bi wax tudd turu yàlla bi nga xamante ni moom xale bi la mu bëggoon am na léegi nag bi loolu amee am ku ñëw si gars yi ñëw ci buur bi ne ko ah gis nga li nga def de xam nga daanu nga ci erreur bu mag daanu nga ci erreur bu mag ñu ne mooy lan mu ne leen mooy lan ñu ne ko li nga doon bañ mooy ku fi gëm keneen ku dul sa yàlla ji moom nga doon bañ léegi ñëpp far nañ weddi yow ñetti nit nga fi amoon ci dëkk bi yëpp ñu weddi yàlla moo doon raahib bi te nekkul woon ci biir dëkk bi yoonam nekkul woon ci ñun moo doon gumba gii waa ji fajoon ak xale bi ñett nit kese la woon léegi yow rey nga ñoom ñett lan mooy résultat bi lan nga ci gañee sa réew mi yëpp yëpp yëpp ànd weddi sa yàlla yooyu dem topp yàlla yi daal yow yaa gañe wala ñoom ñooñu ñoo gañe boo ko évaluer vraiment ci chiffre kan moo gañe ak kan moo perte bu ñu moo perte nee na waa ji daal di ne kon comme loolu la naa leen taal ñoom ñëpp nga gis dëgër bopp réer caaxaan day gumbaloo innaha la taxmal absar wallahi was yàlla wax na dëgg innaha la taxmal absar walakin taxmal qulubu allati fi sudur nee na du bët yi rek ngay de xool mooy gumba xam nga xoolal waa ji rek rey nga ñetti nit dëkk bi yëpp gëm on yéeg nga xalaat yow léegi kon teemaa xalaat lu may duggee man tamit wala lu may jéem a convaincre mais mu ne kon naa taal gaal yépp mu gas ay pax yu xóota xóota xóot taal ko safara di ci sànni waa dëkk bi di ci sànni nit ñi subhaanallah mooy asxaabul uxduud yàlla nee na qutila asxaabul uxduud annaari daatil waquud nee na mu gas ay axaat ay genre déeg ay kàmm yoo xamante ne bii def foo def safara di fa sànni gars yi ñuy dee képp ku mu ne ah, weddil yàlla boo nangoo mu bàyyi la boo nanguwul mu sànni la ci biir nee nañ mu koy def noonu di ko def ba indi benn xale bu jigéen boo xamante ni mu ngi yor liir xale bu ndaw te xam nañ ne yaay dafa bëri yërmande ci li nga xamante mooy doomam ndaw si xaw a bëgg a hésité parce que xalaat na ne moom bu ñu ko reyee doomam dina sonn wala dañ ko dinañu rey doomam mu tiit xelam dem ci doomam mu bëgg a weddi yàlla ngir mën a sauver doomam nee na liir bi xale bi wax moom parce que gars am na ay liir yu jot a wax ci ar ci taarix bokk na ci ki nga xamante ni mooy kan mooy Isa parce que bi mu ñëwee fa asharat ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya ñu ne kii nga xamante ni mu ngi nekk liir mu tooy xet lan la ñuy wax ak moom mu tontu leen qaala inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiya am na ñu ne tamit ci qissatu Yuusuf wa shahida shahidun min ahliha boobu ñu ne xale la woon ñu ne bii tamit liir bi dafa wax ak yaayam xale bi ne yaayam yaa ummaahu isbiri fa innaki ala alxaq liir bi de mu gis ne yaayam moom la doon yërëm mu ne yaay bul ragal de demal bul weddi yàlla parce que li nga nekk mooy dëgg ñu rey la ñu rey ma lépp ci yem waaye li nga nekk mooy li nga xamante mooy lan mooy dëgg kon nga gis ne bokk yi xissa bi jàng nañ ci leçon bu mag mënoon nañoo dugg ci détails yi mais comme li ma wax noonu heure bi dañ koy jéem a sàmm te dese nañu ay xissa au moins yenn ci ay shabab ñi nga xam ne ci jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu bëgg waxtaan ci histoire ñoo ne ci ñooñu kon dañ koy gàttalee fii rek ñu xam ne kon ndekee sacrifié wu pour sa diine point bi ma nga xamante ne bii moom laa doon bàyyi xel nag mooy nit su xamante ne nii moom buñ ko reyee dina nekk intérêt pour jullit ñi ñëpp dagal na ci moom mu sacrifier boppam ñu rey ko ngir jullit ñëpp nekk ci jàmm tey jii nit ku su xamoon ne buñ ko reyee moom la walla famille bi yëpp la ñuy rey kon mu joxe boppam famille bi mucc bu ko leeree nag la ñuy wax de bi mucc moo gën ci moom dina dagan ci moom boo tax cheikh al islam ibnu taymiya parce que xale bi daa sacrifié wu buur bi xamutoon lu mu koy reyee moom moo ko tegtal ni mu ko war a reyee pour lan ngir mu sauver askan bi yëpp ci alku ak dee ci shirk loolu est-ce que am na cause bu gën a noble loolu ñi nga bokkal ñëpp dëkk bi yëpp nga war a leen sobe ci shirk amul cause bu loolu jar na joxe sa bakkan ñi doon jihaad ci yoonu yàlla di dee pour lan la woon fi sabili i'laa'i kat kaddu yàlla lañ bëgg mu féete kaw kon amul cause bu gën a noble loolu moo tax cheikh alislaam ibnu taymiya rahimahullah day wax mu ne xale bi li mu def jihaad la dañ koy mën a considérer xale boobu jihaad la def dafa mel ni shahid la pourquoi parce que joxe na ba bakkanam pour benn xeet umma bi yëpp gëm yàlla subhaanahu wa taala te moom pertul dara sax cheikh islam mooy wax ne nee na bi pertul dara parce que bu imma mu dee woon boobu wala mu dee beneen yoon dee moom day ñëw ci moom day ñëw laamu aala kon dafa war a dee léegi nag sacrifié na joxe na boppam ngir loolu mais cheikh euh, cheikh ibnu Usaymin rahimahullah ci benn charx bu mu doon charx bi xadis bi qissa daf ciy wax ne nag dafa am ay nit léeg-léeg ñu jël luy xew ci suñu jamono ji bëgg ci loolu da nga gis ay gars yi ñu def kamikaze xam nga lu ñuy tuddee kamikaze benn waaye jël ay bomb yu bare def ko ci boppam takk ko fu nekk daal di ñëw fekk gars yi fu ñu tuddee mu taal boppam reyaale fa léeg-léeg fukki nit léeg-léeg ñaar fukki nit léeg-léeg ñetti nit léeg fekk moom rek moo ci dee ñu ne loolu tamit jihaad la parce que benn bakkan la boo xamante ne bii nii rey na ay bakkan yu bare ci yéefar yi mu ne déedéet loolu bokkul lii ñuy def ñun intixaar la tudd xaru la tudd te daganut ci jullit mu xaru jullit bu xaru ci safara lay sax xaalidan muxalladan fi naar nee na nag waaye ndaxte bu fekkonte ne ni kamikaze yooyu dina tax yéefar yi bàyyi jullit ñi définitivement kon mënoon nañu jar na mais est ce que ba gars yi commencé di taal seen bopp ba léegi tax na jullit ñi léegi ñu nekk en paix yéefar yi bàyyi ñu respecté ñu tontu bi mooy déedéet kon indiwul résultat est ce que tax na ñoom ñu dugg ci lislaam yéefar yooyu dugguñu est ce que ñu ngi rey ay nombre yu ko jar ci biir yéefar yooyu kon dañoo war a changer stratégie kon ndeke tolloowul na lële xale bee bi mu joxee bakkanam li xadis bi jàngale mooy lan umma ñoom ñëpp dañoo dugg ci diine alayhi salaam pour nga gis ne am na différence ñu bàyyi xel mu ne nag waaye nee na même lii di xew léeg-léeg ci Palestine souvent nga gis ko nit dem def kamikaze boobu nee léeg-léeg nit moom bu nekkee ci taawul maanaam li muy def mu ngi jàpp ne. dañoo noot réewam dafa am droit def yu acte yu mel ni xëy na mën na cee doxee libéré réewam nee na ñooñu mënuñu leen a jàppee ñun que ne ñu xaru lañ yoo xam ne du ñu doxal ci ñoom ahkaamul islam waaye tamit li ñu tuddee li ñuy def lu tax ñu tuddee ko dañ leen di jàppee rek koo xamante ne bii ijtihaad imma asaaba aw axta kooku digganteemam ak boromam la subhaanahu wa taala kon ñi nga xamante ne bi nekkuñ ci cas yooyu cas de figure yooyu nag ah kon nañu xoolaat bu baax li nga xamante ne moom la ñuy def kon ñuy wax ne. ñun jeune war nañoo jàng sacrifice te sacrifice ça veut pas dire que ni sa bakkan nga war a joxe léeg-léeg ci sa alal léeg-léeg ci sa temps da ngay gis ñuy liggéey benn liggéey boo xamante ne bii ci daawa bi la wala ci sa doole yow nga nekk jeune naan ah saa nii man koy gagné damay dem foofu sama temps du ma fa gagné dara subhanallah doo fa gagné dara ci àlalu àdduna waaw mais di nga fa gagné ngërmal ne borom bi subhanahu wa taala gagné ko ne day avancer diine kon na nga ci war a sacrifier parce que lu bëree bëri da ngay gis ay liggéey ci amal daaw yi ñi ko taxawee après amuñ ci dara luñ ciy gañe ci alalu àdduna parce que dañoo war a sacrifier bépp liggéey bu àndul ak sacrifice du dem kanam moo xam suñu temps moo xam sunu doole la moo xam moo xam moo xam même ñi di woote caaxaan tey boo xoolee liñ ciy jox seen ca waxtu liñ ciy jox seen xel ak seen xalaat di ko si joxe seen doole ak seen alal moom moo tax mu yegg fi da ngay gis nit ku nga xamante day woote ci caaxaanam ak lu dul dëgg da koy jaral lu nekk kon yow mi nekk ci dëgg daf la war a jaral lu nekk comme ni ñu ko xale bi jàngalee ba mu sacrifié woo ngir li nga xamante ne bii mooy diine ji tas sauvé xeet bi ci shirk ñu demaat ci beneen qissa wala ñu doyloo ci ñi nga xamante ne bii jiitu nañ suñu xeet ñu waxtaan ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi joxe ci ay namaz yi joxe si ay exemple dinañ ci tudd wala ñeenti nit ci gàttal bu dee xëj ci ndaxte kat daa mel ni c'est du yéen a nekk programme ban heure la ñu waxoon lay jeex. midi vingt midi vingt ah? midi vingt waaw léegi am nañ dix minutes presque dinañ ci jéem a sakkanal bu ci xajul ñu yoxasu gaa yeneen dix minutes yokk ci incha allah di juboo leen ci loolu wala ñu yem fi ñuy yem lool rek ñu ñuy yem lool waaw kon baax na ñu xool nu ñuy def alaakulli wax naa sànq de. buñ doon wax diine jeunesse dañuy wax ne l'islam mooy diine jeunesse parce que ñu bëri ñu ko taxawal ay jeunes lañu woon mais damay indi ay exemple ci ay jeunes yu gën a ndaw ci l'islam euh, ñu commencé ci Musab ibn Umayr radiyallahu anhu muy Musabul Xayr ñun ñëpp jàngale histoire am dégg nañu mais li tax Musab am solo mooy Musab dafa nekkoon xale yàlla subhaanahu wa ko xéewal mu ci njaboot goo xam dañoo am moom yàlla daf ko mayoon taar may ko xel ba pare mu bokk ci famille bu ko mën a jàppale ci loolu nee nañu mag ñi ci Quraysh bu ñu amaan ay jataay dañ ko ciy invité waale mu toog ngir taaral jataay bi c'est pas parce que dafa am âge bi ñu am ñoom mais taar bi ko yàlla mayoon ak xel bi dañuy bëgg muy fekkee seeni jotaay Musa radiyallahu nee na ci noonu nag comme moom fépp fu waa Quraysh kilifa yu toog dañ ko koy yóbbaale ngir mu nekk taaru seen jotaay kon li xew ci dëkk événement yëpp li mag ñi di waxtaane da koy dégg nee na ci noonu la déggee gars yi di wax ne Muhammad day woote wu ne moom yàllaa ko yónni moom sax ak gars yi dégg nañ ne ñu ngi dajaloo ci Safa ci Daarul Arqam ibnu Abil Arqam ah moom tam mu ne xaaral ma dem dañ kumpa bi mu demee fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal gars yi mu xam ah affaire bi convaincre ko mu daal di nangu dugg ci lislaam jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah mais Moussa problème benn rek la amoon ci àdduna bi muy dugg ci lislaam moom tiitul waa Quraysh gépp tiitul lenn luñ koy def benn nit la doon ragal yaayam nee yaayam mu ngi tuddoon Xannaas bint Maalik nee nañ dame de la woon comme luñ ko wax jigéen ju dëgër comme lu gars yi waxee jigéen ju mën góor xam nga loolu luñ ci jublu sax mais jigéen bu dëgër la woon daal ala kulli xaal bu ah moo saab mu ne kon léegi daal fexe bi mooy li ma mën a def yëpp naa fexe ba bu sama yaay yëg ne bàyyi naa li mu gëm maa ngi topp Muhammad ak li mu def nee nag muy làqatu di dem daarul arxam ibn abul xaram di fekk yonent bi ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim ah bi nga xamante ne bii nii mu ngi fay dem ak ñëw boobu jamono jooju Makka dafa nekk ci période bu doy waar secret mënu faa am làqatu mënu faa nekk parce que ñëpp benn sujet lañu am bu ñuy waxtaane mooy Muhammad ak gaay yi Muhammad ak gaay yi donc ñëpp dañ ciy def xel ku ñu gis na dugg fi ñu nekk génn gisaat na nga dugg génn dañuy commencé topp say mbir Musab mu ngi jéem a nag nëbbu yaayam mais affaire bi sottiwul am benn waa ji ñuy a Ousmane ibn Talha gis na Musab euh, mu dugg kër euh, Daarul Arqam ibn Abul Arqam benn yoon len mën a waaw nguur si lu muy wut fi mu gisaat ko mu dugg fa beneen yoon demul wax dara mais def koo topp beneen deuxième troisième fois dem ba gis ko ni Muhammad ak gaay bi di jullee mu gis mu Musab di ko def mu ne kon kii ñëwul seetaan mais kii dafa bokk ci affaire bi waa ji bi mu gisee buy julli rek xam na fan la affaire bi di baaxee mu départ directement jubal seen kër ñëw ci yaay ji ne ko waaw li mën a xew daal mooy mu Musab moom gaa yi la topp léegi yaayam na comme loolu la moom tey dina xam ne maa moom ñoo koy jëflante indil ko nit ñi ñu def ay intervention mu sax ne mukk moom alxuraan la gëm yàlla ak yonentam la gëm gars yi di wax ak moom moom mu leen di tari ay alxuraan ñu ne kii sant la yaayam nag comme lii la dinaa ko yar dama ko mayoon lépp dama ko defaloon lépp teraanga bu nekk jox naa ko lépp lu nit mënul am fii ci dëkk bi jeune loo mënta sol yére bu baax wala dàll bu baax wala lekk bu ne wala ñu jox la al man defal naa ko ko moom mais dinaa ko toroxal day ngéeju dellu si waat ci man bàyyi Muhammad ak ñi mu àndal yaa ngi commencé nangootu ko jox yére mu sol nangootu koo jox lekk nangootu koo jox dara xiifal ko sonal ko tëj ko ci kër gi nee na noonu la ko tëjee ci kër gi bàyyi ko sonal ko sonal ko sonal mais yàlla mi dara tewul Musa xabaar yegg si ci moom que ne yonent bi yebal na gaay pour ñu gàddaay dem ci mu fexe ba ñi ko yaayam boole loon mu gole ñu koy garde mu fexe ba nu mu rëccee rek daw dem ànd ak jullit ñi dem gàddaay xabash hijra bu njëkk bi dellu si waat demaat gàddaay bu ñaareel gi dellu si waat des ak jullit ñi fa ñu nekk nee nañu situation soppeeku mu nekk ci coono lool nee nañ benn bis Musab dafa romb jullit ñi fekk ñu ngi toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak situation bi mu leen rombee bi mu rombee ñëpp sëgg kenn ñemeetul siggi xool tellement bu xamoon Musab démb ak waa ji ñu gis tey ji torox gi mu torox sonn mu sonn yëri yu bon yi mu sol subhanallah yére yi mu sol sax dañ ko dëbb taaxe fu nekk loo xamante ne bii ku ko bëggoon def torsion ci këram sax yaayam am ak yow histoire tey loolu la mën a sol nee na gaa yi buus ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xool ko xool ko xool ko ba mu yàgg mu muuñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne laqad hada wa ma bi makkata fatan an'ama inda abawayhi minhu summa taraka dalika kullahu xubban lillahi wa makka amuloon benn waxambaane buy dund ci xéewal bu mel ni moom mais loolu lépp àdduna li ci biiram googu yépp mu sax sànni na ko ngir lan ngir bëgg yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa ci noonu la demee noonu la nekkee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koog yaayam ba mujj gi daal yaay ji sonal ko xatal ko mais nanguwul dellu ginnaaw moom daal saa yu nekk bu ko yaayam woowee di ko menacer gën a menacer moom li mu koy wane ne ko man dama lay dimbale bëggal yéene lu baax mooy lan bàyyil li nga nekkee nga ñëw fekk si ma ma Muhammad ak ñi ànd ak moom parce que loolu mooy sa texe yaayam ne ko xalaatuma ko xanaa àdduna tukki waaye man xalaatuma bàyyi li ma nekk di jaay sama xel di ko sànni di ko jox ay dof yu mel ni yéen noonu yàlla subhanahu wa taala mi dara tëwul bayaatul aqaba jot waa Madina ñëwoon jaayante si ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci lislaam bi loolu amee ñu bokk ci li ñu waxtaanoon nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam pour mu boolee nag ku leen di jàngal koo xamante ne ànd ak ñoom dem Madina jàngal leen seen diine balaa ñuy dellu siwaat bay atul aqabal ula comme ni ngeen ko xamee fukki nit ak ñaar la mu ànd léegi nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam yabal pour mu dem jàngal waa Madina moo tax dañuy wax ne ambassadeur bi njëkk ci l'islam Mus'ab ibn Umayr moom la yonente bi njëkk a yónni ci ay nit pour mu dem tas fa li nga xamante ne mooy diine ci bi mu te pourtant am na ñu ko fa magoon foofu am na ñu ko fa gënoon ëpp ko ba lu nekk mais yonent bi sallallahu alayhi wa xam na ni kii moom moo baax ci mission boobu ñu jàngee ci ci yonent bi kële bërëb bu nekk ki fa baax nañ ko fa teg bu ñu xool atam bu ñu xool askanam nañu xool ki baax kii fay baaxal ñu teg ko fa noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmm mu yóbbu yónni Musaab mu dem Mag bi muy dem mu dem Madina bi mu fay dem boobu fukki nit ak ñaar ñoo doon jullit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo mu baayaa woon bayaatul mais bi muy dellu siwaat ci deuxième bayaa bi ñaata nit lañ indi juróom-ñaar fukki nit lañ indi sabuuna rajulan ma bayna sabuuna shaxsan ma bayna rajulin wa imraa bi muy dellu siwaat pour ñu jaayante waxuma ñu gëm yàlla de ci deuxième fois bi bi ñu ñëw di jaayante waat ak yonent bi ñu ñëw pour représenter jullit ña nekk Madina ñi leen représenter bu njëkk bi jullit ñi ñëpp fukk ñaar la ñu woon ba mu demee mission réussir ba ba ñuy yónnee ay représentant pour ñu ñëw toog ak yonente bi waxtaan ak moom am nañ juróom-ñaar fukki nit ñu ñëw teew kon bu fekkonte ne yooyu rek ñoo gëm sax doyoon na mais yàlla subhanahu wa taala daf ko defal li nga xamante ni mooy tawfiq ci daaw ba mu yoroon foofu ci madina bu am solo bo mu àndoon ak xikma dañ ci indi benn misaal rek euh, nee nañu daf daan ñëw bu mu ñëwee moom daf doon ànd ak ki nga xam ne mooy Asad ibnu Zurara ci ansoir yi la moom la daan àndal ci kilifa yi la daf daan ànd ak moom di wër quartier par quartier ñuy daawa nit ñi nee benn bis bi mu demee ci benn quartier toog moo as euh, ci waa banu abdil ashhal xeet boobu la ñëw di waxtaan ñoom di leen woo jëme ci yàlla subhanahu wa taala na seen kilifa usayd ibnu xuday radiallahu anhu fekk ko fa bi mu ñëwee fekk musaab daal di génne xeejam ne musaab ak asad ibnu zurara yéen da ngeen may fontoo ñëw ci samay nit xam ne nekkuma fi ngeen fekk fi xale yeeg jigéen ñeeg ñi nga xam ne seen xel matul di leen jéem a détourné di leen yóbbu ci seen caaxaan yi ngeen nekkee jug leen génn sama quartier balaa maa am lu ma def ak yéen génn ngànnaayam Musab nee nañ gaa yëpp tiit parce que bi ñu ko gisee xam ne waa ji ku tàng la seen kilifa gi nee na Musab waxul dara déglu waa ba mu pare mu ne ko léegi li xew mooy ne yow toogal nga déglu ñu toogal nga déglu su fekkee li may wax convaincre na la nga fekk si ñu bu fekkee ne convaincre la ñun ñu jóg takk suñuy bagage dem bàyyi ak sa quartier ak sa waa quartier nee na waa ji xool ko xool ko ba mu yàgg daal dina ko feexlal parce que waa ji borom xel la woon nag daal ne ko li nga wax moom yenu na maanaa wax nga dëgg daal di toog déglu nee na Moussa commencé jàng alxuraan muy dégg commencé waxtaan ak moom nee na balaa waxtaan bay jeex waa ji Usayd ibnu Xudayr radiallahu anhu ne musuma dégg wax ju rafetee nii wala gën a dëggoo nii lii musul am ne ko lii nga wax moom du waxu nit kese kese musul am ma dégg lu mel nii te yàgg naa yàgg naa dégg ne ko ku bëgg bokk ci seen diine ji nan lay def nee na mu ne na ngay dem laab sangu laabal sa yére watu daal di seede ne amul benn buur bu dal yàlla nee nañ Ousseynou dem ba mu yàgg ñu gis ko mu dellu siwaat mu ngi tooy xëpp daal di taxaw ci kanamu nit ñi seede ne an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mu dugg ci l'islam te Ousseynou comme ni ma waxee moom moo doon sangu banu abdil ashhal ci madina kon xam nga la plupart ci mbaaxu yàlla dafay def léegi léeg bu bëggee baax a benn xeet seen kilifa lay njëkk a jubal su duggee rek nga gis ñeneen ñi fekk si ko nee nañu ginnaaw loolu xabaar boobu siiw la ñu ne ah Usayd ibnu Xudayr dugg na ci lislaam dugg na dugg na ku ñuy wax saadu ibnu Ubaada Saad ibnu moo njëkk ñëw moom tamit waxtaan ak Mus'ab mu convaincre ko Saad ibnu Ubaada ñëw waxtaan ak Mus'ab mu convaincre ko ñoom ñaar ñëpp ñu dugg ci lislaam léegi kon kilifa yu gën a mag ci Madina ñoo nekk ay jurit léegi Saad ibnu Muaz ak Saad ibnu Ubaada ñoom ñooy sangu Aws ak Xasraj ñaari xeet yi gën a mag ci Madina muy aws ak xasraj ñu ne kon seen tet yi seen kilifa yi dugg nañ ci diine ji ah banu abdul ashar seen kilifa dugg na ci diine ji léegi nag nit ñi bu ñuy waxtaan dañ naan waamee sawa yow maam maag yow lan la ñuy bu fekkee ñun suñu kilifa yi ñu yaakaar ci lépp dugg nañu kay ñun lan la ñuy yéexantu ah nañ dem dugg looloo tax yàlla yombal dugg waa Madina ci li nga xamante ne bii mooy lislaam loolu lañ duggee kon nga gis ne yàlla subhanahu wa taala defal na tawfiq Musab ci mission bi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam yabaloon mais boole ko xikma ak góorgóorloo moom tamit kon yow jullit fépp foo xamante ne nekk nga fa nga war fa représenter l'islam da ngaa war a fexe ba lislaam am fa ndam parce que da ngay nekk fenn di fa liggéey wala nga fay jàng wala nga fay jëflante dañ lay xoolee ni ñii ñooy jéem a woote woo sunna ak nangam ak nangam ak nangam yow da nga ko war a comporté wu comportement yoo xamante ne ku fa jógee bu da koy naw parce que mission nga fa nekk de da ngay ñëw ci boîte bu liggéey benn service yow rek yaa fay sunna waaw gars yi commencement bi dañ lay joxoon di la jëw di la wax ay wax yu sew mais am nga lu muy demee ba fay bi ñoom ñëpp dañ lay bëgg ku ci am loo xamante ni da nga koy dee nit waxtaan ak moom ci yow lay ñëw ku ciy dénkaane mbaa muy laaj xalaat ci yow lay ñëw parce que yaa ko fa wane mais soo ko wanee safaan ba nga xamante ne bii bu fa jógee bu tëjee si ne la ah gars yi dañuy sóob rek li nga leen di gis ni yëpp ci fii la yem seen soli nii la yem ak seen sikkim mais weesu wuñ boobu dara nekkul ci ñoom kon yow def nga. lu wuute ak mission bi nga ci moom la lislaam soxla woon ci yow kon Musab noonu la rëccee woon te xoolal yàlla subhanahu wa taala dafay nattu nit Musab noonu la nekkee euh, Badr passé Uhud passé ba ñu rey ci Musab nee na moom moo yoroon raaya bi boo jullit bi moo ko yoroon bi gaa yi tasee bu affaire bi jaxasoo yéen di gis ne yoon am na pour ñu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam song ko ndax boobu la rumaat yi wàccoon seen place ba affaire bi jaxasoo Musab gis loolu xam ne lii euh, bëgg a xew moom du jàmm parce que gars yi ci yonent bi lañ bëgg a jëm directement ne nañ mu ñëw taxaw nag commencé jàkkaarloog ñoom moom kese di xeex ak ñoom di xeex euh, ku nga xam ne mooy ibnu saada mu ngi koy nettali boo demee ci mu waa ji mooy ne bi nga xamante ni bi Mus'ab ñëw na taxaw di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye bu ñuy wax ibnu Qami'a moom moo njëkk a gor loxo day joor bi mu yoree woon drapeau bi loxo bi want mu jël drapeau bi ak beneen loxo xam na ne léegi moom li mu ragal mooy ne gaa yi dinañ ko roy te dinañ yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lan la doon consolé lan la doon naxee boppam maanaam pour dalal xelam muy wax naan wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul loolu la doon wax moom gars yi dagg beneen loxo ba rey mu dee xoolal la mu doon wax wàcc na mujj nekk alxuraan bi kon nekkoon ayam dafa wàccoon ba mu koy wax de moom moom loolu la gëmoon dafa gëm ne même bu muhammad faatoo tamit am na ay yonent yu ko jiitoon faatu kon moom loolu la doon wax bu ko gaa yi songee di ko jàng di ko gor jaasi mu naan wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul yàlla subhanahu wa taala wàcce waat wax jooju mu nekk alxuraan boo xamante ni ñu ngi koy jàng ba léegi boo demee ci suratu al imran di ko fa fekk yàlla muy ne wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqabikum far yàlla bi dara teewul mu dimbale ko ba nga xamante ne bii lañ lam doon ragal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama amut nee nañu ci noonu la faatoo bi xare bi jeexee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di xool ñi ñu rey ci jullit ñi xam ngeen ne ki fa gënoon a metti ku ñu rey ci jullit ñi mu metti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Hamza am ak ni ñu ko def ni mu méttee yëpp waaye teewul leen yonente sallallahu bi mu ñëw ba ci Musab dafa taxaw yàgg fa lool ñaanal ko mais gis ne sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kanamam soppeeku na lool ñu ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ñaanal ko ñaanal kii comme ni nga xamante noonu la ko xabaab di nettalee nee na bi ñu gàddaayee ànd ak yonent bi amuñu woon dara mais am na ci ñun ñoo xam ne leen lu bari ci àdduna gis nañ lu bari am na ñoo xamante ne bi gisuñu dara ci seen wàll ci alalu àdduna mais xanaa li ñuy yaakaar yëpp mu ngi ci àllaaxira nee na Musab bokk na ci ñooñu ndaxte Musab ak xéewal yi mu dundoon ci àdduna yëpp nee na bi mu deewee li mu yor ñu war ko koo muuree pour suul ko mbalaan jotul suñu muuree bopp bi tànk yi day feeñ ngir gàttaayu mbalaan bi suñu muuree tànk yi bopp bi day feeñ nee na yonente bi sallallahu ne nañu muur bopp bi jël ay ñax mottalee ko fi nga xamante ni mooy tànk bi radiyallahu xool fi mu jógee ak fi nga xamante ni fan la yow jullit da dugg ci diine dañ nga ciy nekk mais bul musa yaakaar ne meññeef yi ci war a am da koo war a góob ci àdduna déedéet mu sax góobul te moo kan mooy musaab moo ñu gën moo gën koo xamante ne bii sax moo ñu gën mais ak loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu taxawee ci ñoom musaab radiallahu anhu yonente bi daal di jàng aaya bi yàlla subhanahu wa taala wax min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba ku mel ni musaab mi cël ñooñu la bokk wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila mbokk yi kon dafa mel ni dañoo waxoon midi vingt la te léegi presque yegg nañ midi et demi desoon na bëggoon nañ wax ci Muaz ibn Jabal radiallahu anhu wax ci Abdullah ibn Omar ibn ak Abdullah ibn Amr ibn al-As loolu mooy li nga xam ko mu nekkee xëy na contrainte de temps la ñu am incha allah dañuy tënk fii ñu yem foofu bu ñu paree dinañ jox document bi ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo yilif dawra bi ku mu ci intéressé mu bugg cee delluwaat gis incha allah bu yeggee foofu dinañu xam pexe yu ñuy def ba jot ko kon mu nekkoon gàttañ boo xamante ne bii nii ci ñun la ndaxte ni ñu ko waroon a taxawee taxawee wuñ ko noonu ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu waaye leçon yi ci jàngee ci gaañu baax ñooñu yàlla ñu yàlla may ñu mën a roy ci ñooñu taxawu loolu yàlla def ñu ay ndaw yoo xamante ne bii dañuy jeexal suñu jeunesse ci topp ko moom borom bi subhanahu wa taala nekk ci li nga xam ne mooy ngërëmale ba yowmal qiyam buñ ñëwee dinañ bokk ci saba yooyu nga xamante ne bi yuzilluhum allahu fi zilli yawma la zilla illa zilluh tey kon bu boobaa ñu ñaan yàlla mu boole ci ñeneen waaye fekk tamit bokk nañ ci ngir ne dugg nañ ci shaabun nashaa fi ibadatillahi subhanahu wa taala kon yàlla ñu ko yàlla defal kon ñu